bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتل لما سبق نسرق بالوقت والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قديره ومنبره عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نسرق بالوقت والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله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 المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك المتذلل لا يبتلنا الله جل جلاله ببلية الإغراج عن ذاك الولي وهب لكل سالك مريدي طريقنا المراد بالمزيد واتوي له بهيد كل بون واكشف له عن قدرة الكون حتى يشاهدك أنت أنت حقا يقينا ربي بتا بتا واسقينه ربي من ماء الغيوب وتوجنه كل تاج معبوب وردوا من كردا يواتي وركبنه مركب النجاة وامدره بسر وسر العصم والعت بعز والعز يسمي ولتكفيه مغونة الغيال ما دام في بيدان ذاك الحال وهب له المواهب سنيا دنيا وأخرى عيشة مرديا وهب لنا المواهب سنيا دنيا وأخرى عيشة مرديا وهب لنا المواهب سنيا دنيا وأخرى عيشة مرديا وافتح له الإله فيما أرتجي خير الفتوح يا قريب الفرج من فتن الحياة نجني والممات وهول قبره وهول سكرات ونوراً طريقه وأنسي واختشه وارقم ولا تعيسي واخت الكتاب باليمين وسقل الميزان يا معين على الصراط اجعله كالبرق وما شابه من لحظ طرف قد سما ونجعه من القساب والعقاب وارزق في لقاء قصنا المعاب مدبر الأمور هو الله ليس لها مدبر سواه كم أبرأت وسبت باللمس راقته وأطلقت عربت من ربقة اللمم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأشد في آجامها تجم وصلى الله على سيدنا محمد الطائبين الطاهر وسلم تسليما كثيرا وأسيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وشرابها ونور الأبصار وديائها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 di ziyaare ñëpp kenn ku nekk ci tolluwaay ak wàccuwaay bi ko yàlla jox di gërëmaat yàlla di ko sant moom mi am kàttanu dajale mu yemb ñu sant ko ci loolu moom mi ñu fi dajalewaat mu yemb nañ ko bëggee woon yal na ko yàlla saxal cam yàgg li Cheikhul Hadj Abdou Aziz daan wax ne ba faw mën mënta am waaye mu yàgg lool nag mën naa am ki koy joxe kenn la moo di suñu boroom subhanahu wa taala yal nañu ko yàlla boole jox ñun ñépp ba kenn ku nekk ci xolam lay ñux ñuxi mu ne lii suma sañoon dund ko ci ay at yal na ko ko yàlla jox mu dund ko ko mu dund ko ala wajhil ardi li sëñ Abdu daan wax ne yàlla dina xool ay jaam mu xool ne waroon nañu tëdd barzaq lu yàgg mu ne ñii daal ñewent naa leen jël fa ay waxtu jël fa ay bés jël fa ay semen jël fa ay weer jël fa ay at ne ñii daal dama leen ñewente nañ ko dund ala wajhil ardi ndax seen tëraayu barzaq bañ a yàgg yal nañu yàlla boole ci ñooña te lu muy yàgg-yàgg nag yal na ko ragal yàlla ak jaamu yàlla gu yàlla nangu lal ak wërsëg yu yaatu nag yu gunge dund gi ba kenn ku nekk loo bëgg a faj nga faj ko koo bëgg a dimbale nga dimbale ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquranul karim ci barke bés bu tedd bi di bésu ajjuma comme ni nga xamee ne noonu lañ ko fi diggee woon man ak yéen ak mbokk yi ko fekkee woon ah maa ngi dog yàlla ngi dogal maa ngi fiy door a xadarawaat depuis boobu ba tey ndax nekkuñu fi woon waaye yëg nañ ne it loolu bokk na ci li ma gën a neex suñ fi newee ak suñ fi newul yépp mbir maa ngi ndox loolu yàlla sedd na ne fi muy yàgg ci sama xol yàlla rek ko xam waaw ndax bari na loo xam ne ka yàlla teg ca bopp ba bu fa nekkee rek mu dox waaye bu fa newul day mel ni dara mosu faa xew loolu nag yéen kilifa yi ñu ngi leen di seedeel ne amul fii fii moom ma nekk fi ak ma ñàkk fi nekk dara soppeeku fi su ma fi nekkee sax yokkul dara xanaa xëy na tafsirul quran bi waaye suñ fi newul kiy jiite suñ fi nekkee kiy jiite mooy jiite kiy ñaan wasifa mooy ñaan wasifa muy hashim hashim bi ñaan léegi kon ñu ngi gërëm yàlla bu baax imaam Mouhamad lamin Diop moom laay njëkk nuyu ndax mooy sama njaati gi lii bu amee tey yàlla nga ko jaarale ci loxoom fuñ dajee nag dinaa ko wax ndax nëbb jëf ju baax ci kufru la bokk xeetu kufru la bokk te bu ma yaatoo amookat dal fi yaatu fi ba lii am fi yàllaa ngi ko jaarale ci imam Mohammad Lamine Diop bii toog mu yàgg lool boobu Aminatu mi ñu ko bàyyele ju doogul te Amina mu ci vingt quatre ans vingt cinq ans te jiitu na ko kon yàgg na ñu nga daje woon ca kër alaaji bu jaw ca parcelle Assainies unité 2 wala unité 1 yàgg na fale ñu xamante ba yendu si fii yendu ba mujj daanaka jur fanaan ci lañ ma fi maye faama wàdd bii yal na yàlla dolli leeram nga xam ne entre parenthèse maa ngi wax ne lii moom rek la fi waroon fekk waaye nag fekk yal na ko fekk fu dàq fii te am nañ ci yaakaar it nag waaw te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax yàlla moom ah du fakk jëf inna allaha la yudiyu ajral muhsinin te man mi ko yàlla dënkoon gërëm naa ko te yëgoon naa ne it diineem rafet na téye woon na njàmburam kon nag la ca des nag kenn sañ te dogu ne lii la yàlla di def waaye yaakaar moom ku ne sañ na ko kon nag yaakaaral nañ ko yërmande yàlla ak njëggalam ak àjjana ju dàq fii yal na ko ko yàlla defal ca barzaxu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kon imaam Mouhamed Lamine Diop ñu ngi lay ziyaara di la ndokkeel bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di wax ne fu ma mën a nekk ci àddina bi it li ci ëpp danaa ko woone ko maa ngi barab sàngam pour mu xam fu ma nekk eh, di nuyu bu baax alxaaji xalifa Diallo bii nga xam ne moom it depuis vingt-six ans ñu ngi bokk dëkk fii léeg-léeg mu wax ko xale yi te muy dëgg moom mii fu ne ànd nañ fa mag moom fu ne daanaka fuñ àndul ci senegal bariwut waaw léegi eh, mu ne xale yi maa leen njëkk a ànd ak shérif fuuf boobu maa ngi benn Mercedes bawal bawal ak R r ba sax ca la njëkk di ànd mag moom wax dëgg yàlla muy ku baax ñoo àndoon it dem màkkatal mukarram muy suñu lépp rek ci gàttal di nuyu alxaaji bàcc mbay bi nga xam ne moom it jarbaatu imam Lamine la maa ngi koy wax keroog ci xew-xewu Mansour Thiam bi dimanche ma ne ko Amina de war na laa jox àllarba yu bari nag te bu boroom këram ñëwee na ko wax ne kii mooy sama sëriñ waaw ah, waaye yaa ko daral alif ba moo ko daral alif baa fii ci jumaa ji waaw kon nag moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu tamit fa tabarakallahu alaaji abdul aziz fall bi nga xam ne keroog inauguration bi moo jiite te it moo jiite waat di kenn ci ñun ñuy kenn ci moom wala sax muy ifaadatika minka ilayka loolu la yàlla dogal dinañ ci ñëwaat di nuyu nag kilifa yi fi nekk yépp rawati nag docteur Mor Jaxate bi nga xam ne moo toog muy docteuru dakaar Dem Dikk moom mooy seen docteur muy ku baax collectif de médecins bi ma yàlla booleel te xam ne ñooy liggéey ci mutuelle de santé bi ma fi taxawal vingt et un docteur lañ moom mii ci ñi ko jiite la bokk mook docteur Ousmane Dieng ak docteur ba Fall ak docteur xalifa Babacar ak docteur moor bari nañ vingt et un médecin lañ at bu jot daañu fi ñëw jongal fi lu toll ak téeméeri xale ak juróom fukk ak lu teg gratuite ci technologie bu bees bi nga xam ne ku ko doon defal sa bopp gàtt gàtt di nga fay cinquante mille francs te du bokk ak pansement ya ñoom ñu def ko gratuite damay wax ne boo doon calculer rek docteur bu ne nañ yegg si nii boo doon calculer xale bu ne cinquante mille cent cinquante xale ñaata la bari na buñ koy def ñoom nag di ko def gratuite te boobaak léegi mu ngi bëgg a yàgg ay at la kon ñu ngi leen di sant alxaaji Samba Xari bisimilah yegg si leen moom la chargé woon gannaaw bi ma waxtaan ak imam ba noppi imam moom ca France laa ko wooyee wax ko ko waaye comme alaaji sàmba nag moo moo yoroon liggéey bi ma ne ko nag waxal ma waa jàkka ji ne ñoom ñoo moom yëf yi ñoom laa doon defaral rek toogal bu wax sëñ Ousmane ñi ci des si alaaji Ousmane Thiam alaaji Samba Xari Fall eh, alxaaji si alxaaji eh, Moussa Ban alxaaji Guèye Modou Guèye aw kañ alxaaji sekk tabarakallahu ah Maguette Seck eh, ñëpp ñu ngi leen di Isxaaqa si alxaaji yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara wax ji daal du gudd waaw moom ca France laa ko ko waxee woon ma ne ko ñëwal rek boo ñëwee daañ la utal foo toog ndax xam naa ne tànk yi neexatut waaw procureur Assane Ndiaye le procureur Assane Ndiaye mu ngi ci suuf moom it ne ko mu yéeg Ibrahima Ibrahima Sabali moom it tabaarakallahu muy ni ñu koy waxee ci ingénieur fiscal comme moo moo kii ñoo ko bokk Euh, Ousmane Sonko moom mu ngi impôt et domaine la nekk saabali mook docteur buñ mënee yéeg ñu yéeg xam naa donte nag ci suuf am na télévision li xew fii yëpp ñoom ñu ngi koy gis ci suuf ci kowit kazalika looloo tax ñu def ko kon ñu ngi koy sant comme euh, le procureur Assane moom it suñ fi nekkee suñ fi newut yëpp fi lay defee xadaratul juma waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax am na yenn ndomboy tànk ku ko am am na barab yoo xam ne danga fay réyee dem waaye moom bam nekkee lycée di jàng la fi commencé di ñëw ba yàlla ne def mu nekk commissaire de police defaat beneen examen dem nekki procureur boobaak léegi tànkam jógu fi di sant ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi gis naa leen fi Ibrahima Guèye jógal taxaw Ibrahima kii ngeen gis lépp loo fi gis muy aluminium moo ko liggéey kii taxaw nii lu ngeen fi gis muy aluminium rek moo ko liggéey maa ko jox tariqa bi du gis ngeen ko loo fi gis muy alimiñom ba ci separation bi moo ko def waaw loo fi gis rek ci kër gi luy aluminium rek moo ko liggéey tabaarakallaahu mooy li ma leen daan wax rek bi ma ko jëlee ci lo mu ngi nii moo yore métal menuisier bi lépp lu fi métallique moo ko def ana Ibrahima xalifa Seck xalifa ñang jógal jógal taxaw moom lépp lu fiy karo moo ko def lépp lu fiy karo moo ko karoole hmm? ok moom it ci xadara bi la nekk ana cheikhu cheikhu sàll ak ak Aline Aline jenn ci suuf bu bu ngeen gis ci kër gi ñoo ko liggéey ku wàcce nag nga xool bo porte yi ci suuf nga xool ko hmm? ak bunt yi yépp lépp lu fiy bois rek ñoom ñaar ñi ñoo ko defal ana plombier ah Chérif ana Chérif Diallo Chérif ñëwul waaw moom lépp lu fi plombier moo ko def ana masaar jogal taxaw moom lépp luy maçonnerie moo ko def ñoom ñëpp ci xadara bi fii laa koy waxee ci kanam yi ñëpp nag dama leen ne bu liggéey bi paree clé en main ba lépp jeex tuutee ci des xëy na fi ak fin di mois lépp dana pare ci kàttun yàlla dama leen ne ni ma taxawalee mutuelle de santé bi noonu lay taxawalee entreprise. laa koy man du pour man pour yéen la man bu dee man rek mën naa tedd sans yii mais yii bu ma ciy sonn pour yéen la ngeen dimbale seen bopp yéen a ngi nii kenn ku nekk na wax dama leen fay wala dama leen fii sabilillahi wala addiya laa leen laaj dama leen fay ba mat bañ naa ko sax dama leen ne yéen duma leen jox avance bu doon jàmbur ma jox ko avance waaye yéen ñaata la kenn ku ne ku ma ne tant de million ma yëkkati teg ci sa loxo ñoom ñëpp ki ma ci ki ci gën a moyele deux millions cinquante mill la ma ne leen duma leen avance dama leen di jox lépp waaye nag délai bi bi date su ñëwut maag yéen parce que Sénégal dañu war a weesu yii lu nit man nekk ci sa biir jox ko ko waaye nit ci buñ la wóoloo ba jox la bul foyee sa bopp bul foyee sa bopp i'malu wa saturadduuna ila alimi alghaybi ak kan sow faux abu sow ñëw na ñëwul moom lu ngeen fi gis ci faux plafond moo ko def yi ngeen fi gis yépp moo ko def waaw ñii mën nañ wala mënuñ ah waaw Seydi moom moo def peinture bi moom xam naa ñëwut waaw mu ngi fi bu dee mu ngi fi Seydi lépp luy peinture moo ko def te peinture yi amu fi yi moom par commande la moom la ñuy wax greffier ak bi ci biti kër gi yépp mu ngi koy commandé bi Mauritanie di ko indi di ko liggéey kon yii boo gisee ma wax ko rek pour ñu xam ne ñi ko liggéey ñu ngi fii waaw kañ courant bi ana Pape Modou le génie l'homme de douze métiers ana ma modu Pape mu ngi ci biti moom moo ma gën a jaaxal ci ñëpp moom moom lépp la man tabaarakalla yàlla ba ko catu moom moom moom moom moom du courant kese rek moom loo ko ne lii rek mu ne la bàyyil ma liggéey ko waaw lu fiy courant lamp yi ngeen di gis nag jarga sow moo ko fi indi waxoon naa ko yii tamit mu ngi ko commandé fii waa Medinatul a commandé seen yos ca Chine moo demal boppam ba ci usine ba commandé ko indi ko yii moo nekk ci usine ba 200 kilomètres la ak capitalu Chine fa la dem commandé ko ñu bind bi muy ñëw ñu ngi ci bind xadara zawiya Cheikh Seydi Ahmad Tidiane amoo kaat kon moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu yéene la ak sonorisation bii ngay gis bi nekk jumaa Tuubaa la fi indi ñemewuma ko yokk sax yàlla xam na ko micro bi mën naa ko téye dem ba ca jumaa amookaat ba di wax muy ñëw fii essayé naa ko mën naa téye micro bi génn kër gi dem ba jumaa amookaat toog fa di wax muy raisonné wu di ñëw fii te du am interférence moom it mu jënd ko ay millions yu bari indi ko moom jarga sow ñu ngi koy gërëm di ko sant fa tabaarakallaahu yooyu yëpp dama leen koy wax ndax nit bu la defee leen lu baax da nga koy wax ba ñëpp dégg ko Cheikhul Hadj Abdou Aziz moo ku la defal lu baax wax ko ñëpp dégg ko soo wéetee nga ñaanal ko yàlla loolu rek lañ ci Yaxya Diop Mansour Alxaaji Badara Gaye waaw ak kii ni ñu koy waxeeti kii Jaañ Moustapha Diagne mooy njëkk a yaakaar naa cinq sàmba nu mu ko defee woon ak million neuf cent mille joxe ko ca kénkaayére ba ne alaaji sàmba xari dee ko jël bem jeex bu jeexee nga wax ma fii li dem ci million bu ma ko waxoon nit ñi ñu foog ne ay fen la waaye yàlla def na lépp alaaji sàmba xari bii ci loxoom la jaar moo njëkk commencé fondation bi waaw ñaari oto laa jaay def ci benn oto bi ma njëkk a jaay maa ngi ko jaayee dix million te daan na jaroon na quatorze million laa ko jëndee woon ma jaay ko def ko ci beneen bi vingt neuf millions laa ko jënde woon jaay ko ne def ko ci kon waaw ah, beneen ñëw yeneen ñëw na bu yàgg yàlla ku koy lebal da koy lebal yi ñëw moo gën a cher yooyu sax yàlla xam na ko te bu ci nekk jënduma ko benn bi 35 millions lay jar beneen bi 48 millions lay jar te aw ko woon ah, kuy lebal lebalal yàlla man za lazi yuqridu llaha qardan xasanan kon nag waa Cees ñu ngi leen di sant ñi jógee Cees ñoom ñépp ah, kii jéey anamu Adja Yaasin moo leen jiite muy ay lamin ak Maguette Dieye ak suñu goro Ibrahim di sama turando Sall ak kan ku ngeen àndal Maas Alxaaji Maas Diop ak seen goro Hachim Lamine kan la Alaaji Yusu Jàllo lee yegg si na léegi ak euh, waaw kañ euh, Fall xaji ndongo Fall du ñoom ñaar la ah kii kan la ah du Imam waa Bachir Ndiaye gis naa ko ñoom ñëpp gis naa leen wax ji daal dañuy bañ mu gudd jigéen ñi ñu ngi leen di sant bu baax Lamine lépp luñ fi fas yéene naan ci boisson Lamine jiyee ko yónnee te mu nga ba Paris mooy seen jar seen jarbaat la seen doom la tabaarakallahu kon dañ bëgg waxtaan wi tëdde nii dafa am lu Alaaji Abdou Aziz junjoon loolu la ñuy wax comme dañ defar ay reer te am na ñoo xam ne guddee reer baaxul ci ñoom faw ñuy reer ndax mu gaaw a rees bi ci desit moo di ah am na ñoo xam ne ñeme wuñ xiif bu xawee guddi tuuti rek dootuñ gis seen bët yi day lëndam du noonu su ko defee kon dañuy jox alaaji sàmba xari mu def introduction bu gàtt tabaarakallahu ci kanam waa amookaat maa ngi koy sant di ko gërëm moom liggéey bi lim ci daj ndax man tooguma guddi dina fi ñëw bëccëg dina fi ñëw ngoon dina fi ñëw suba dina fi ñëw amul heure bu mu dul ñëw bu ñëwee ne ma lii baaxut nañ ko corriger léeg-léeg ma ne ko alaaji sàmba nag yooyu tam nit nag ah waaye dara mu ne ma bul jàmbat nañ defar rek xalifa am na benn kii bu ma gis tuuti nag du gis nga fii waaw ak fële ci suuf xam naa bi ñuy kocc koccal la nga defaraat ko su ko defee kon alaaji sàmba ñu ngi koy sante ci seen kanam yéen ñëpp te feyuma ko benn dërëm nag daf ma ne daal jox ma matériel rek lu ci aju rek danaa ko def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm mënoon na ne ah sama ñaq di ma ko fay waaye sama ba mu ne ma ci kër gi laa bokk ci zawiya bi laa bokk te tiyaaba lay ut kon jox ma matériel rek fa tabarakallahu ba liggéey bi yegg si fii tey ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ba léegi bàyyiwut ba démb rek moo dem commandé ji par paravent yi xaw ma noonu lañ koy waxee avant yi avant yi yëpp moo dem commandé ji ko indi ko tabaarakallaahu ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal su ko defee nag cité bi yëpp la ko defal wóor na ma yéene bi mu am waa cité bi yëpp ba ci kii ma jël loolu kër muy koli koli mii nga xam ne ñoo jëlloo kër te bokk diine li ma waa bi yéene la ma yéene loolu xam naa ko koli mii nga xam ne ñoo jëllool kër te mosuma fi def dara lu du tàggu naa ko ba ci xadara bii ñu fiy def moom laa njëkk a dugg këram tàggu ko ne ko dafa am lu ñuy waaja def fii booba xadara amagut te damay bañ di la perturber ndax kat diine la waaye diine bëggul kuy lor dëkkandooram te mag yow bokkuñu diine ma doon ñëw di la wax ne daal am na ajjuma bu jot lu ñu fiy def lu tudd xadaratul juma diggante tàkkusaan la léeg-léeg nag mën naa dem ba minuit ma wax a wax a wax ba yeggal mu ne ma man ma foogoon ne bër bu set la nga di ma wax àjjuma ba àjjuma defal num la neexe moom ko li mi maa ngi koy sant di ko gërëm mook soxnaam waaw nit boo dangay wattandiku àq àq baaxul ak yeneen ak yeneen léeg ñuy gas ma ne ah jéggal leen ma de ba bi ñuy peinture peinture bii ci biti sàmba xarit mag mooy dégg dama wax waa ji ne ko su fekkee ne peinture bi doyul bàyyi leen ko waaye li ngeen di peinture ci kër gi moom ngeen di pentiir ci biir këram ay mu ñuul ak ñu def ci godron ma ne ko te ñoom ay chrétien lañ lu ñuul déey la ci ñoom peinture fa lu ñuul nag bër bu set ñu gis ko nekk ci déey du ma ko nangu leen du ko nangu peinture leen ko peinture bu mel ni bi ngeen di peinture ci kër gi wala bu ko dàq wala ngeen bàyyi parce li Alaaji du daan wax dem ba yowmal xiyaam nit ki di la topp ak fii ku gën a yomb moo gën a sedd te yooyu yëpp ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel kon ñu ngi koy sant moom it Koli ñuy sante waa cité bi yëpp Pascal Koli donte bokkuñu diine waaw ak Sembène mii nga xam ne moo nekk ci sama ndeyjoor moom it lu ma ko ma a wax rek mu ne bu ma tàggu sama njoboot mooy sa njaboot sama kër mooy sa kër bu ma tàggooti moom loolu la ma wax. loo fiy def bu ma tàggooti bu ma yëgal seetal noo ko bëggee rek nga defee ko noonu ba pare it léeg mu ñëw ne ma fii nangam ak nangam ak nangam xanaa doo fi def nangam waaw loolu ku la yéene yiw moo koy def damay wane rek ne cité bi benn yéene bi man li ma gëm benn yéene bi imaam lamin Diop am moom muy kilifaay cité bi mooy daw ci cité bi yépp kenn ku ne am na boobu yéene kon yal na yàlla saxal teraanga ci biir cité bi yal na yàlla saxal jàmm ci suñuy diggante yal na dem lante yiw yi di bari te dem lante safaan yi sore waaw donte sax du safaan ndax ah moog ñu na ànd rek xalaxal mawta wala xayaata li yabluwakumu ayyukumu ahsanu amalan di sant waa xadara bi yépp di sant asatise yi fi nekk yépp oustaz lamin Diop oustaz Sidi Ahmed Mbaye oustaz Abdou Aziz Thiam ah ak oustaz Alioune Sall oustaz ñoom ñi nga xam ne bu ma fi newut ñooy doxal su ma fi nekkee sax ñoom lay wax doxal leen ma tëj alxaaji malik Fall bi nekkoon wal fajiri fokk ñu tudd ko fokk ñu tudd ci wal fajiri ndax moom la ko nit ñi xamee woon waa ñëwut dara alxaaji Cheikh Sembin jógee Rufisque fa tabarakallahu euh, ak sow bu limaamulaay ak sow mu azin ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp alaaji Cheikh Kouté bii nag nga xam ne moom mooy kenn ci ñun am itte lool kii ngay gis imam xam naa xam nga ko de yóbbu na courant seen dëkk yóbbu fa électricité yóbbu fa maternité yóbbu fa ay ay sage li ma gën a neex ci moom dafa doxalee jikkoy sëriñam sëriñ Cheikh ba mu fa yóbboo électricité bi mu am werante daf leen ne samp leen fépp bàyyi mujjee leen sama kër daw na lu yàgg si électricité ba te këram amul préfet moom mujj insisté pour ñu defal ko moom ndax yëf ya matuloon mu ne leen comme maa ko fi indi jël leen yéen waa dëkk bi man ma muñ ba ba may am waa jeex na walaw kaana bihim xasaasa hmm? kon nag ñu ngi koy gërëm moom itam muy borom itte nag borom itte borom itte la borom itte pire la pire kon ñëpp rek jigéen ñi maa ngi leen di sant yéenay pendal ju man tubéy waaw yéen li fi dem ci ci ci seen alal bari na te bëgguñ ko ko wax léeg-léeg rek xew-xew am ñu ne ma boole ci lii wala ñoo def lii ci liggéey bi cent mille deux cent mille cent mille deux cent mille ci seen ñetti dërëm yi ñuy dajaleeg yooyu ba mat ñu indi boole ko ci liggéey bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba ci ki nga xam ni moom it mooy suñu kenkaay kenkaayere bële di Ibrahima e, Ibrahima Diop waaw nga xam ne léeg-léeg fii ñaari kilim laa fi bëggoon def naar bi yoroon liggéey bi naar bi ne ma boo fi defee ñaari ñaari kilim consommation bi day bari def fi e, bi ñuy wax armoire moo gën Ibrahima dem jëli armoire bi jox ma ne ma saa yoo amee rek fayal waaye kaay def ko fi yooyu yëpp xeetu teraanga la ku la ko defal na nga ko wax muy Ibrahima jóob te taalibe ma borom Tuuba la fa tabaarakallaahu dafa ma wax ne fii bépp milliard bu la neexee ñëwal jël ndax am naa ci yow confiance te duma la laaj duma la arrêté ba un milliard bu la neexee ñëwal jël ndax xam naa ne dinga ko fay loolu nag ku am ci yow boobu kóolite te mënoon na nañu bokk ñu tarixa kii tijaan la kii murit la te fii rek laa ko xamee ci géejawaay waaye doxalewut ak man noonu muy Ibrahima Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawati nag xale yi ci xadara bi ñu am ñu am ñu am itte lañ waaw bu njëkk dañ foofu laay jeexalee sama kàddu dañ daan ñëw ne ma dañ bëggoon bokk ci main d'œuvre beeg yooyu ma ne leen déet Serigne Cheikh Tidiane si laa dégg mu ne biñ commencé set setal sa safaas ca Fès marok mu ne Cheikhuna Tidiane daf leen woo ñu ñëw mu ne arrêté leen réew mu am budget set setal waru fa am seetal boobu digg ah, mu ne Cheikhuna Tidiane ne leen réew mu am budget set setal waru fa am bàyyi leen budget boobu pour mbedd yi la ñu setal ko waaye bu ma fa gisee ci set setal ah te ñun gis nga ko xëy na dañuy set setal te normalement bu jég bu njëkk amee set setal war am loolu mooy dëgg ndax impôts yi ñuy fay pour loolu la ah pour loolu la moo tax bi xale yi waxee ñoom it ma ne leen nañ bàyyi rek fii ku fi liggéey dañ lay fay waaye ay bénévole yaa amu fi waaw ndax ëllëg a tax ëllëg ay doomu jàmbur lañ damay bañ ñu naan Chérif a ngay exploité doomu jàmbur yi nangam nangam nangam te fekk rek ñun ñëpp yiw la ñuy ut rek ñun ñëpp yow yiw la ñuy ut kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah waaw fàtte woon na imaam Youssou Guèye waaw moom mooy imaamu zawiya bi moom ku ko fàtte it di nga ko fàttaliku moom ba xadara bi amee rek moom laa ne ko yaay imaamu zawiya bi ndax man tooguma même bu ma fi nekkee man duma jiite moom mooy jiite wala oustaz Alioune Diop wala kenn ci asatise yi ñooy jiite buñ pare it mooy jiite la ndax ñun koor lañ dut la waaye lu biti koor dañuy la kaamil bi lañ daan naafila waaye comme xaafis bi nekkatu fi moo tax maata yassara la def léegi waaw Aline Diop moo daan def kaamil bi lañ daan naafila buñ ko tàmbalee suñu gàmmu gi ajjuma bi sës ci gàmmu gi lañ daan yegg si naa si def xatmul quran waxtaan tasaaroo waaye comme nekkatu fi nag dafa am daara fële ca côté Malika waaw mu ne maata yasara huwa huwa al asli waaw mu ne loolooy cosaan li maata yassara mooy cosaan li waaw moo tax léegi maata yassara rek la ñuy def waaye nag ajjuma bu jot danañ koy def ndax koor gi duñ ko mën parce que buñ dogee rek dañuy yeweeku kenn ku nekk dem makkaanam fa muy xad euh, naafila mu naafila fa ñu ngi sant ñi nekk bitim réew bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant Europe Amérique Asie ñëpp cinq continents yi daal ku fa nekk di seetaan Chérif Dabakh TV maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ndax amul fu may dem ci àddina bi amul benn aéroport bu may wàcc taxaw cinq minutes ci ay nit ñëwuñu wër ma amul fenn ci àddina bi fi ma demagum yépp nag ci Cherif Dabakh TV laa lay seetaan ci Cherif Dabakh TV laa lay seetaan wala ci télévision bi laa lay seetaan ah loolu nag boo amee ñi yor liggéey boobu maa ngi leen di sant muy Omar Diop Abdou Aziz Diop Abdou Aziz Seck Abdou Aziz Thiam ay Abdou Aziz rek ko seq na te loolu du du lu ma sélectionné kenn ku nekk métier ba mu mën rek ca lañ ko woow mu tombeek turam di Abdou Aziz fa tabarakallahu ñu gën ma cee sawar tey jii en direct la waroon a nekk waaye yàlla dogal ñànga eddi bële muy Cerno aadama gay bi ngeen xam nga xam ne ah wax nañ ne par minute la daan gis Cheikh Seydi Ahmed Tidiane tey ak suba mooy bësëm te at bu jot ñun ñooy dem def ko couvriral ko ko def ko en direct fa la ñu dem pour defi en direct boobu ndax suñ kàddu rëccoon nañu bii ma ne leen nañ ko def en différé bu ëllëgee ñu tegaat ko ana ngaala waaw kañ ngaala moo doon ca Mansour am de waaw ngaala moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Eh, mook Mansour Thiam bi dimanche fa lañ nekkoon ak Chérif Dabakh bi kon nag Mansour ñu ngi lay sant yow itam bu baax di la gërëm ah di sant seen ñaan yi tamit yegsi na Thierno Diop bu Thiès moom mooy borom jotaay bi ah, dëgg yàlla jógee bale ñëwoon na jógee Thiès bii ñëw na jógee Thiès kon Thierno ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla nga ñaanal ñu rek di ñaan it di leen wax ne seen ñaan yëpp yegsi na alxaaji baara wan seen medaay bi jot naa ci waaw dañ ma bëggoon takkal médaille ci fête d'indépendance bi waaye ma ne leen man aw ma jot di dama dama doon bañ nag def ko médaille yu bàyyi Sidi Lamine Kunta ba waaw ba ko Senghor ooyee di ko takkal medaay mu ne ko lii mooy lan mu ne ko médaille mu ne ko bu ko def ci sama mbub mi de def ko ci kaala gi moo jur Sidi Maxtaar Kunta <laughs> alaaji doo fa nekk di ko mocc di ko mocc di ko mocc bañ takkal ko ko ci mbubb mi waaw Baye Sidi Lamine Kunta te fekk rek alaaji doo ko ne Senghor daf ñu soxla dafa nàngam nangam mu ne ko Abdou yow loo dugg ñeme naa caa dugg eh, biñ demee nag bañ war leen a takkal médaille yi Senghor yekk si mu ne ko looy def nii Senghor ne ko médaille mu ne ko luy médaille ci àddina mu ne ko réew mi dañ laa xàmmee mu ne ko yàlla xàmmee ma nga naan réew mi dañ laa xàmmee foo koy def mu ne ko sëmb mu ne ko bum di foofu de def ko fii ci cati bi fii ndax dama boo ko ciy def ma dindiwaat ko alaa job nekk di ko mocc di ko mocc bañ tappal ko ko ci mbub mi ndeysaan moo jur si di maxtaar kontam yi sama xarit bi waaw moom def na 44 ans de de de xilaafa ci njaasaan étage bu mag boobu ngay gis njaasaan moo ko fa moo ko fa def si di maxtaar it waroon na ñëw waaye dañ am dëj tey kenn ci waa njaasaan yi moo génnati àddina fa lañ nekk fa tabaarakallaahu looloo tax sii di Maxtaar ñëwut kon alaaji baara ñu ngi lay sant médaille bi Ablaye Ba ma ko jëlli li waaw daayira étudiant yi ñoom ñoom moom leen di ci koor gi toujours ñoom laa koy defal université ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom samay séddoo lañ université bu Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ngi leen di sant di leen gërëm Alaaji Baara di sant di la yóbbante cant ci monsieur le maire Baydi Sèye Alioune Sall moom jot naa ko démb sant naa ko gërëm ko moom it ci yépp rek médaille yi moom baax na waaye bu ma fi fekkoon nit dinaa ñëw waaye daf fekk nekkuma fi ma ne euh, Ablaye Ba na ma ko jëlali kon nag Alaaji Sàmba bu paree dañuy jox oustaz Abdou Aziz Fall am na une heure de temps bu paree benn intervenant rek moo am muy imam Mouhamad Lamine Diop am na 30 minutes su paree ñu ñaan xéewlu damay bañ mu yàgg moo tax du noonu noonu baax na ne waaw ndax intervenant yi tamit bu baree du du baax te comme alaaji ma la kan yàlla waroon na ñëw waaye démb la ma woo ne dafa am mbokkam boo xam ne day gàmm ca wetu Baba Garage te mosu caa dem ren mu yelwaan ko ne ko na ñëw dimbale ko ñëw ci gàmmu gi ma ne ko demal ñu wutu la Imam Moussa Gueye barki biig gisante nañ ba wi moom itam kadalika yeneen intervenant yi waroon a ñëw yëpp dañ am ngant kon noonu la ko yàlla bëggee moo tax nag noonu la jagee it nag noonu la gën a baaxee su ko defee Alaaji Abdu am nga une de temps boo paree ñu jox imaam Mouhamad Lamine Diop am na 30 minutes muy une heure 30 minutes su paree ñu ñaan kenn ku nekk nag fi nga toog toog fa rek te bu bu jotee rek nga xaw a yaatal géew bi am na yu ñuy indi lal ko rek kenn ku nekk baat yeeg akaliyaat yi fa la lay fekk <laughs> incha allah ndoxu raxasu it fa la lay fekk fi nga toog daal doo fa jóg waaw dañ koy def yi fi medinatul munawwara rek waaw du noonu ah muy góor muy jigéen nag ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñëpp ak ñi ci mbedd mi kenn ku nekk daal fa nga toog toog fa rek dana am lu la fa fekk waaw yoo xam ne maa idatan min as-samaa'i <laughs> waaye takunu lana iidan yal na ko yàlla def nag ayatan mink waaw yal na ca toftal warzuqna wa anta xayru raziqina yal na ko yàlla def waaw bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxaaji malik si sa jinge mu ngi may nettali nee na bi fi imaam mahmoud xalilil xosari ñëwee moo nekkoon giddam moo góor ga liggéey ca Thiès nee na ah déedéet papay Cheikh Guèye euh, damay fàtte tur bi léeg-léeg mu ñëw léeg mu dem déedéet du ma hmm, moo jur Cheikh Guèye bii di jiite yoof jumaa ji ci Yoff moo ko jur nee na biñ ñëwee nag sëñ Abdou keroog al amin ndeysaan yal na yàlla dolli leeram ma dem nag di ko won photo bi parce que photo baa ngi ci sama portable ma won ko ko ne ko xoolal yàgg xosari bi mu fi ñëwee mu ne ma i yow foo jëlee lii ndeysaan ci neex ci ci ñeex deret ga yow foo jëlee lii Chérif ma ne ko ah, ci garde rek mu ne ma ah booba rafet na waaye léegi màggat na <laughs> boobu mu ngi am yaram ndeysaan boo gisee moo tax yàlla rek a mën a tëgg nit yàlla rek a mën a tëgg nit boobu si ñab doo ngi am yaram rafet mu ne ma gis nga boobu rafet na waaye xoolal léegi màggat na ah, ma ne ko si si jingee daf ma nettali lu lu neex mu ne ma bi imam mahmoud xula mu ne may wax na dëgg nee na biñ ñëwee xam nga Tiwaawan dañ mën teraanga ñoog tuubaa ah, waaw buñ lay teral dangay foog ne rek seen yaram neexut nee na ñu indi nag pittax yeeg nuñ koy ti ginaar yu tuuti yooyu ne ak euh, kii yeeg entre yi daal nee na biñ ñëwee ba mu ne xosare di lekk rek di lekk rek nee na ba misiw yi di dugg si nag nee na mu ne siise siise ne mu ne ko ma haada siise ne ko ataam mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aouzu billahi an akuna min aljahilin xoolal ku la nga xam ngay foyee aouzu billahi an akuna min nee na tekki kaala gi nee na dugg ci misiw yi nee na dafa lekk lekk lekk lekk ba yaakaar ni kii du xasari nee na sëñ Abdou nee na ma ne ko yow rek a war a lekk nag ndax ni ngay def ci alquran <laughs> ndeysaan mag ñi dañu baax mag ñëpp baax koo ci jege rek nga xam ne yaaram la waaw mag ñépp nag unanimité waaw maa ngi koy nettali bi njëkkee dem seeti sëñ Abdoul Ahad Mbacké Touba Belel ñu ngi ko fekk ci taati garab gi mu toog ndeysaan moo tax bu ñu daan dem ci gàmmu sëñ ko sa gànnaar ba jaar fa sama xel yëpp sama àddina yëpp day tukki ndeysaan bu ñu yeggaan ci taati garab yi lañ koy fekk mu toog fa lay indi ndékki li bu ñu indee ndékki mooy séddaleel boppam buñ paree nag jóg dugg ci néeg bi bi ma fa mujjee ndeysaan ci la ma doon wax mu ne ma ay dara mu ne ma ah man day Sénégal jaaxal na ma mu ne ma ah réew moo xam ni euh, dëkkee lu bon yaakaar lu baax fii rek laa ko gis dëkkee lu bon yaakaar lu baax mu ne rafet njort rafet njortukat yeggu fa waaw mu ne rafet njort yeggul kat ci dëkkee lu bon yaakaar lu baax mu ne rafet njortu yeggu fa kat moo tax yéen ñi kat góor góorlu leen mu ne ma xanaa xamoo ne yow gëmuñu la yi tax ñu gëmul mu ne man mii gëmuñu ma kat sëñ Tuubaa tax ñee ci Tiwaawan nit alaaji Maalik a tax <laughs> waaw dëgg yu ratax la lay wax yoo xam ne ba pare nag booy dem mu may la xaalis bu bari mooy bul mer <laughs> ndeysaan maag Sidi Maxtaar Konte mii ñoo fa daan ànd ndeysaan ak sëñ Souleymane Seck waaw yal na yàlla dolli leeram mag ñépp a baax boo demee ci Cerno Yaxya li noonu Cerno Moussa Kelly imam Oustaz Malick Guèye ñoonu lañ daan wëree mag ñi fu ne lañ daan dem sëñ Moustapha Ndong Altu Gañik fu ne lañ daan dem fu ne ma fuñ dégg ne wëli nga fa rek ñu dem fa waaw kon nag alxaaji sàmba kàddu gaangoog boo paree rek ñun ñëpp alaaji abdu nag moo dugaloon ñëpp moo ne lu tax xadratul juma ñuy wax laa ilaha illa laa ilaha illa ba mu yàgg ñu soppi naan allah allah allah du loolu la woon sëñam looloo indi woon wax ji dama ne ko kon nag nañ ko jàppale douze ndax mu fekk ma fi nga wax lu tax intervenant yi contribuer imaam Lamine Diop bi ba ma nekkee Paris woo ko loolu la ma wax mu ne ma lu ñuy wax ma ne ko ah sëñ Abdou moo ne lu tax ñuy wax laa ilaha illallah ba mu yàgg ñu ne ko fa tekk naan allah allah allah am na lu tax am na sabab sabab boobu nag lañ bëgg a waxtaanee tey mbay fay alaaji mbay fay tag ñu ngi lay nuyu ah? Jim géey moom itam ñu ngi koy nuyu DG Jim géey étudiant ISEC yi ñu ngi fi ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di anaki mu ngi fi Babacar sàmb bi tagg yonent bi mu ngi fi bu fi nekkee rek mu jege si Aline Badara Ndoy moom itam ñu ngi koy sant di sant ñi jógee Tiwaawan tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bismillah kon alaaji Samba Khary la ñuy jox rek mu def introduction buñ paree ñun ñëpp asalaamualeykum mbooloo mi ah, Chérif bu ma joxee kàddu gi pour mu wax mën a jaaxal ñu bari ndax man ak moom lii lépp ba ñu koy sumb 2012 la woon 2012 la ma ne sàmb fii ci kaw dama bëgg ñu def ko xatra ma ne ko waaw ñëw fi def relevé yi toog ak moom ni ko nii ak nii ak nii nii ndax baax na muy nañ def nii def nii def nii waaw 2012 yéene gi moo fa nekkan kàttan gi financièrement li ko war liggéey nekk nekku foon ba 2015 mu woo ma benn bis mu ne ma sàmb dama bëgg ñu tàmbali liggéey bi ma ne ko Chérif kii xaalis a koy liggéey de waaw mu ne waaw nañ tàmbali rek yàlla baax na waaw yàlla def ba ñuy tàmbali même pas un mois mu am kooku mu ko xam Moustapha Diop Moustapha Diagne ni déposé na ci benn quincaillerie yi un million neuf cent vingt cinq mille ngi koy jël man tey mënuma la wax ni kii mooy Moustapha Diagne waaye ci téléphone chaque fois fu ñu toll mun ma fu yëf yi toll ma ne ko noo ngi avancé noo ngi avancé noo ngi avancé waaw bu xaalis bi jeexee buy buy waa jeex bu ma wooyee sax léeg-léeg moom Moustapha dama koy rusa wax ni xaalis bi jeex na waaw mais naa wax Chérif ni ko xaalis bi de soxla naa tant de million mu jaay oto ñuy liggéey parce que booba aussi ñun ko doon liggéeyee dafa wokkul woon ak nun ni ñuy faral di liggéeyee parce que booba fer bi ñuy wax fer importé waaw nga xam ni doon na jar ba cinquante deux mille francs cent kilos bi local bi nu man nu man ko am ci mille ma ne ko faire importe bi lañ ci def xeer bi xeer bu ñuul bi lay doon bu basalte bi du doon xeer bu weex bi wax dëgg yàlla moom itam mu ñeme dépense léeg-léeg sax damay da parce que damay ñëw mu jox ma 2 millions balaa semaine bu jeex ma koy xool bëti xaalis bi jeex na ah man nag sama diggante ak Chérif ma amul lu ma ko ragal a wax loolu rek mooy différence bi waaw waaw ndax euh, comme ni mu leen ko fàttali woon am na bis boo xam ne damaa dem ca xadar ba fële ca terrain bi ñi toog nañ ñetti at ca terrain ba lañuy xadara man ko Chérif dama bëgg ñëw ci xadara bi mu ah baax na waxuma ko sax ni lii laay wax waxuma ko lan laay fi si man daal ñëw naa toog naa mu jox ma kàddu gi ma jël parole bi remercier leen muñ loo leen parce que sedd ba nekk fële taw bi lay lekk terrain football bi dafa metti waaw man leen nag shérif jaay na ba jaay otoom def ko ci xatra bi shérif clando seen shérif bi léegi clando lay dugg waaw kon nag yéen mbokk taalibe cheikh yi ah, ñu jéem a seet lu ngeen a mën a def rek def loolu sax pour inciter leen pour pousser leen rek ñu def yëngal leen ndax nee naa leen bu doon suñu mbokk yële de moom waxatuñu suñu xadra bi waaw bon pour pour dire ko Chérif ku am volonté la woon ci fii waaw parce que moom lii moo nekkoon priorité ti comme ni ma ko waxee woon keroog kilifaam di Thierno Bachir taal bi nekk Louga ba mu koy wax da ko ni fexeel ba bërëb bi gën a rafet sa néeg waaw tey xam naa ni sëñ Bachir bu ko gisee nii xolam dina gën a sedd waaw waaw waaw waaw pour wax leen rek nii waaw volonté bi mu amoon pour am lii yàlla jàppale na ko ci waaw moom nag bërëb bi bërëbam la ba may wax sama mbokk tijaan yi fari dama leen nii bu leen kenn bu leen bu leen nangu chérif ëpp leen ci Cheikh Ahmed Tidiane ki tax ñuy defar lii waaw li mu ciy def semence day day ji rek yéen itam leen waaw donc ñu dem yàlla di def lan commencé woon à un moment liggéey bi xawoon na taxaw Chérif am ñu ko jàppale aussi pour finition yi waaw bis ba may woon boobu maa ngi Dakar moom Samba day foo man di dem jubal si fii sama kër boo ñëwee waaw booba damaa jàngale ba wàcc jubal si fi ñëw fekk ko fi mun ma lii ak lii ak lii lañ ma proposé man ko alhamdulilah waaw alhamdulilah mu ngi daal ba clé en waaw man ne ko alhamdulilah n'empêche nag dañu continuer nun ma yore rôle supervision contrôle ak assistance waaw donc moom laa continuer ba yàlla def lii pare muy sama satisfaction man waaw moom moo ko moom de waaye ëpp ma ci satisfaction ci bërëb bi waaw sama kàddu nag du ci gudd dama leen a bëgg na wax rek fanu commencé en 2012 ba tey en 2019 muy pendant sept ans bu doon bu doon bu doon maternité ñu ni septembre de maternité ñu ngi soog di accoucher lii waaw kon moom ah, sant yàlla sant ñi nga xam ni participer nañ ci liggéey bi am na ñoo xam ne moom mii voyagé na. mu boole maak ñooñu ñooñu dañ doon contribuer fair faire rek tonnage bi ñu fi indi ay tonnes fair yi ñu fi amuñu fi ñu ko def ci école ba lañ ko yóbbu ma toog ak ñoom leen lii ak lii leen na soxla pour mën a àggale ba dalee waaw ñooñu ab colonel de. waaw man miinante wuñu waaw mais bi ñëwee. bi ñëwee dañ maa woolu sama kër ma ñëw man moom ñun ñett ñu toog fii mën leen lii ak lii la ñu koy def ñu ne ma ñaata la ci matériel jox ñu ma xaalis mais ñoom ñoo indi oto chargé matériel bi ba mu ñëwee xajul fii te fii dañ fi doon liggéey mënuñu fi teg ay fer di liggéey ñu yóbbu ko ci école amokat bi foofu lañ ko stocké feere bi bu ñu soxlaa dem ñëw di liggéey ba loola jeex waaw kon nag liggéey bi metti woon na mais jar na ko waaw jar na ko ci aussi satisfaction comme ni ma leen wax rek bii satisfaction wu waa cité bi la aussi waaw waa xadra bi aussi seen satisfaction la donc yàlla na leen fi yàlla yéen ñëpp bàyyi yàlla ngeen fi xadra ba seen sët yi ñëw di leen aw donc ti teraanga yi ak sutur si yàlla nañ ko yokk maa ngi jéggul jërëjëf waaw kay noonu mu ko waxee alaaji kolonel malik Mbaye Malick Mbaye Mbaye moo ko Ablaye Mbaye moo nekk Bimaawo ak Ismaïla mbaay seen jigéen a ngi ci suuf sax maa ngi koy tooñ léegi bi may yéeg eh, seen nijaay moo ko doon denc ñoom seen yaay seen papa ak yaayu ay Tall Sall ñoo bokk ndey ak baay fa tabaarakallaahu ñoom la Sàmba di wax ne ñoo fi indi woon feer yooyu sama ginnaaw mokket yi ñu toog jarga sow tamit moo ko commandé bi Chine indi ko li may wax beneen xale boo xam ne fii lay xadara boobu maa nga Espagne ñu koy wax Sàmba Ñang Mansour Guèye bii la ne ko bu ko shérif yëg dama bëgg bu zawiya bi pare lu fay moquette maa koy def mu dem commandé ko commandé ci yaakaar naa une valeur de un million et quelque fii lay xadara bi jënd bi mu jëndee moquette yi ba pare jarga jëlee ay moquette Chine indi ko ñuy même couleur même dimension xam nga loolu loolu yéene yéene ëpp ko même couleur même dimension ma ne jarga comme yaa def yi bàyyil ñu lal bu bu bu bu sàmm bi te ci ko moket du yàqu maa ngi ko stocké denc ko fa tabarakallahu ci lañ lal bii denc bale waaw ndax comme lii ilal abat la ah, te danañ soxlawaat renouveler waat moket ah, ñu denc ko rek gannaaw du yàqu la tax nag foofu la ñuy jeexale moo di li tax ma sonni ci ñaar la rahmatullah alayha wa radiyanha faama wadd ba bi mu tëddee lalo hôpital li ma mujj a wax gannaaw bi ma naan sëriñ Mansour a ngi nii ne dafa may jël si mook sëriñ kër si loolu la mujj wax ak man ay vers une heure du matin dal di ne ma bàyyi fi ndey meeri te dem mooy sëram bi ma dem am ñu ma doon déposé caaroy wëññeeku boobu maa ngi nekk mares bi ma yegsee ba yeesal sama njàpp di jàpp pour julleeg yooyu ay deux heures trois heures du matin lañ ma woo ne ma gaañu na faama génn na àddina li ma mujj a wax gannaaw yooyu ma doon daf may wax daf ma ne maa ngi lay ñaan lillahi wa rasuli xadara bi bu ko toxal mukk ci kër ga waaw xadara bi bu ko toxal mukk ci kër gi waaw lu àddina métti metti may ma ngir yàlla xadara bi bu mu toxu mukk ci kër gi ndax bokk na ci li ma gën a neex loolu benn ñaareel bi bi ma jëlee pour liggéey ko wax ko Thierno Bachir ñaan ko ci ndigal sàkku ci moom ñaan daf ma ne defar ko ba dàq sa néeg ba ngay fanaan beneen bi defar ko ba ku fa ñëw dina xam ne Cheikh na Tidiane yeeyoo na li nga ko defaral dégg nga li ma la wax ma ne ko waaw ñaanal ma rek ma ne ko acca bismillah mu ñaan ñu dem ñaar yooyu tax na gannaaw nag ibtiraa mardatillahi sàkku ngërmande yàlla moo ci jiitu gannaaw yooyu yëpp nag ñaar yi moo tax kon daal maa ngi ñaan te xër la rek waaye xam naa ne sax noonu lay amee luñ fi am ci yiw rek yal na ci faama wàdd ëpple luñ fi am ci yiw rek yal na ci faama wàdd ëpple luñ fi am ci yiw yal na ci faama wàdd ëpple yal na séddu bay séddaale ñam ko bokkal ñoom meer gay ñi fi newoon ak meer kumba fayek waaw ba ci nijaay ñoom Moustapha Moustapha Mbaye la mooy nijaay ñoom Ismaïla mbaay bi ak ñépp ñi nga xam ne nekkoon nañ fi ak ñun te dem yal nañ ci séddu ci yiw wa bañ fekki leen yal nañu dem jillit ñépp di ci séddu fi dunya wal axirati yal na ko yàlla def kon alaaji Abdou kàddu gàngoog bismillah